ñoo xam ni maa ngi koy dégg ci waxkatu jamono yi. Mhm. dañu naan man noppi garmi laa yor du ma dégg lu ñaaw. doon garmi daal allahu akbar man làmmiñu garmi laa yor du ma wax lu ñaaw. Mhm. lay dëgg la am na koo xam ne bu ñuy wax mu safaan sax mu ne du ma lu ñaaw. Mhm. lu ñaaw du ko fekkee. du ko wax du ko dégg waaw bu ñëpp meloon noonu fu ñu ñaaw day day day faatu. dañu koy suul denc ko. dëgg la jërëjëf euh, Imaam Lamine. léegi question bu mujj bi mooy lan ngay wax politiciens yi ak waa réew Ah, alhamdulilah rabbil alamin li leen sunu baay daan wax sunu maam yi daan leen ko wax mooy ñu xam ni réew mi moomuñu ko dañ koo bokk ak ay nit woote jàmm dox jàmm dund ci jàmm li ma ci gën a naqari nag mooy shahru ramadan weer wu sell wii nga xam ni tey weer la woo xam ni kenn ku ci ne ci ñun boo gisee sa moroom da ngaa waroon di ziyaaranteeg moom di dimbali néew ji doole yi di joxe ay lekk di joxe ay naan ñu tàmbali woon fi culture yu rafet bu weeru koor jotee foo dem ndogu koo dajeel mu jox la xéewal waaye dafa mel loolu dafa commencé wàññeeku. sax ko ñemee moom ah. dañ ko ñemewul ci nag xeex bee tax. ñemewuñ ko. xam nga kuy xeex doo joxe lekk ak ak ak leneen sëñ Lamine maa ngi jéggalu. leneen loo xam nit ñi dañ koy def. Mhm. mooy ñi ñi leen di jox ndogu ci mbedd mi di nga dégg ñeneen ñu taxaw ca wet wa di ca wax lu ñaaw. naan daa am luñ cay def pour ngeen topp leen nag mu ngi noonu ñu tamit nag Sénégal tamit def fi lu baax day gis nga am na njort yoo xamante ni bàkkaar la. Mhm. njort yu ñaaw yoo xam ni bàkkaar la jullit du am njort bu ñaaw mhm. jullit day positiver àddinaam lépp da koy def xam ni lu am rek mooy li rafet mooy li neex suñu borom. Mhm. waaw na ko maam Cheikh Xaaji mu ne zaaka jamilu loo gis rek jàppal ni lii daal mooy li rafet. mag ñi seen force moo doon ñoom xàmmewuñu bu naqaree bu neex. Mhm. ndax lu ñëw rek dañuy xam ni yàlla la. Mhm. lu ñëw rek dañuy xam ni yàlla la. réew mi faw mu metti metti sa yaja allahu baada usri yusran ginnaaw jafe-jafe jàppandal. wallaay dëgg mag ñi dañuy wax ni bukki bu xiifee dafay reetaan ñu ne ko bukki lu tax ngay reetaan mu ne xam naa ni xiif regg ci topp bu reggee day jooy ñu ne ko bukki lu tax ngay jooy mu ne xam naa ni regg xiifa ci topp xiifa ci topp te mhm. muy dëgg àddina jafe-jafe ak jàppandal moo fi ne bu ñu nekkee ci jafe-jafe nañu àndandoo jàll loolu mhm. bu bànneex dikkee ñu àndandoo dund ko te xaaraat ëllëg bu leneen ñëwee ñu mën koo jàll donc ñun loolu la ñuy woo ci bokk yi mooy ay doomi jullit lañ ci gis ay nit yu baax lañ ci gis ñu bëgg seen réew lañ fi gis ñoom ñépp nañ def benn say waxtaan waxtaan ak kilifa diine yi waxtaan ak ñi nga xamante ni borom xel yu rafet yi ñu jóg dox jàmm ci diggante gaañi jàmm ne ñooy ci dëkk bi ku ne delluwaat sa yitte mm-hmm. buñ demee ba toll ci élection nag la ñu war def ku ci ne fa nga far nga dem def la ngay def le peuple est souverain ku ñu fal koo ko doxal ña ca des dem toogi loolu mooy àddina yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla na yàlla dolli sutura yàlla na yàlla dolli tere Sénégal genn gaal rek la mhm. kenn mënul dem bàyyi sa morom kenn mënul dem ñii ñuy wax tey ñu ak ñoom a gën a bokk bu dee ca pouvoir ba bu dee ci opposition ba am naa cay mbokk hmm. imaam am na ca mbokk soxna yi am ngeen cay mbokk kon nag jàmm rekk a ñu jig hmm, ndax Sénégal ñun ñëpp ay bokk lañ hmm. kon li fi ne mooy ñu fexe defaroo suñu biir rafetoo suñu biir góor-góorlu te gaa ñi nga xamante ni dañuy yàq diggante yi nañu génn ci ñi war a wax wax ñi war a jëfe jëfe réew maa ngi yàq ci ni ki war wax war a wax ki nga xam ne war ta wax bi mu jàppee ni moo war a wax moom. fa la réew mi yëngoo fa la réew mi yàqu. loolu la Atoumane di wax léegi sama benn xarit. waaw nee na ma nee na ma lii yëpp li ko waral mooy ñu waroon a noppee wax. waaw ñu waroon a noppee te internet bi ubbeeku nag may ku nekk mu mun a wax. mu ngoog mhm. bari na koo xamante ni tey mu ngi prêché ci diine. te mu ngi taal rek. Mhm. lay dëgg la te dañ ne ab la kat. wala borom xam-xam la. muy taal rek te taal rek lay wax. Mhm. du wax jàmm. dëgg la kon nag ñu mel ni oustaz yii doon ay borom xam-xam nekk ci média yi am nañ ci responsabilité bu rëy. mooy ñoom seen mission na nekk lenn rek. mooy fexe ba sunu mbokk yooyu nga xam ne dañoo taxaw ngir taal ñii baare leen route bi balu la ñu bëgg duñ ko am.